mais li ma mën a wax mooy décision bi dafa méngoo ak yone parce que simplement arrêt cdao bi mënu waxul ne ñu libérer Khalifa Sall un Khalifa Sall demandé wu nako arrêt cdao daf ko dakal donc mënuñu jël arrêt cdao bo xamné néwul newul ne ñu libéré Khalifa Sall pour que ñu demander demande ñu introduire demande pour demander libération Khalifa Sall donc lolu motax tax cour d'appel rappeler né que mom cour d'appel mënul mënul exécuter arrêt cdao ñom lu ñu mën def mooy jël arrêt bi jël huissier huissier dem laaj xaalis moy 35 millions yu ñu jox état état fay donc loolu lañ mën mais par par contre procédure bi arrêt bi amul ben incidence amul ben impact ci arrêt donc loolu coup d'appel wax motax mu dàqal demande de libération